taxawaayam bu rafet ci wetu askan Sénégal du tey yàgg mais surtout ku nga xam ne foo dem da ko fekk fu mu nekkoon parce que lu mu gën lu mu gëm dafa dëgër te dafa wéeru ci dëgër ci dëgg yaakaar naa ne discours léegi wane na moom askan bi ak intérêt askan bi léegi askan fu mu nekk rek foofu la nekk.

tey yàlla bàyyeen ak ñu ñu ñëw topp leen tey ñu ngi baaxal yépp yàqu yàqu ñu dara mooy les doyens de Benno ko Yaakaar c'est vrai notre doyen Brin quand il prend la parole et qu'on le regarde buñ ko gisee déglu ko xam nañ ne c'est un pionnier qui mais yaakaar naa ne senegal dafa bari yu mel noonu yàlla moo ko sos fii

defar senegal bëgg am senegal ci yenn ak ci jën yi la war a jaar c'est la voix obligée maa ngi leen wax ne Thiès ñëw ñu fii parce que dañu bëgg ñëw fii rek non affaire bi fii la am fii Thiès moo ko yore Thiès nag du tey ëllëg la woon ñun yàgg nañ ci politique ñu ngi fi depuis Senghor mais xam nañ ne bu ñu waxee politique dëkk ñaari gaar moo ko moo ko moo tax. yéen nag lu fi gën a fës ci Thiès waa Thiès dañu ko rek te histoire Sénégal xam na ku ñu àndaloon su dee yow yaa bàyyi daw ñoom du ñu loolu nag monsieur le maire wax na ko léegi am na ñu nga xam ne dañuy abuser seen confiance dañuy abuser seen confiance mais bu ñu bu leen gisee tey gis seen taxawaay seen wax ñu xam ne loolu jeex na tàkk naxaati bi gudd na yàgg na te leeraay bi ñu am xam-xam am jaar-jaar woon nañ ko woon nañu yoon bi incha allah rabbi lu des ci yoon bi rek la jaar.

di leen woo ci ànd nekk benn bool boole boole seen nañu boole seen xol boole seen xalaat boole seen taxawaay taxaw ci wetu waa waa waa Thiès taxaw ci wetu responsable yu nekk Thiès sans exception que ça soit les responsables politiques que ça soit les responsables euh, syndicaux que ça soit ñu nekk responsable yu nekk seen mouvement la ñu am bëgg ànd ak président dooleel président dañuy war a ñoom ñëpp ànd ak ñoom déglu leen jàppal leen pour ñu nekk benn.

ba 24 février prochain bés boobu heure bii day fekk fal nañu président Macky Sall au premier tour donc loolu moo tax ñun ñun ñu tànn bés bii ñu tànn bii dañu bugg ngeen compter ngeen xam bi bu delluwaat boobu mooy vote bi. un bi day fekk président donc tey le point de départ la nañu ku nekk responsable nos Bokk wax ñaari mission la mission dugg la mission mission dugg nañu taxaw sénégalais yëpp ñu xam am nañu âge bindu war nañu am carte d'identité war na nekk suñu à partir du 1er mars

Nous avons non seulement taux de participation pour baax mais aussi nous sommes bari comme ñu nous taxaw ñu sommes woo nous sommes ñoo organiser nous sommes Nous si bari les président Macky Sall ñu nous ko le 24 février 2019 Nous Non, yakarna sommes ne nous ñu si wara taxaw nous sommes seen mu ngi monsieur le maire mu ngi mouvement yi mu ngi et incha allah rabi ñun ñëpp dañuy lonkoo nekk benn ànd ak acteurs politiques yi xal yoon bi yóbbu ñëpp ci président de la république fekk le 24 février ñu jox ndam bu leer nañ ramp nag ñu may jiitu wax na ko wax nañ ko ñu dajale ak boolee bañ a siisante bañ a xeebante kenn lu ñu am ñu bokk ak yéen fu ñu taxaw ñu gis leen ak yéen ngir yaatal mbootaay mbootaay président yaatal taxawaay président gën a fësal liggéeyam ak taxawaayam ci réew mi loolu moo tax ñu xeebuñu kenn donc euh, suñu appel te ci kaddu président lay wax di ko waxal responsable politique yu nekk ci Thiès ñoom ñëpp Fatima kenn bu mu limee demee juum. diko ko waxal waa Benno Bokk Yaakaar diko waxal tous les mouvements mouvement bu ndaw amul tous les mouvements yenn mbootaay association de femmes association des jeunes mouvement organisé ñu xamné gëm nañ né acteur politique bu xamné gëm nañ ñom gis nañ liguey président nangu nañ liguey président bëgg nañ jappalé président ñom ñëpp président lu mu wax mu ngeen and nek ben parce que élection bi man maay candidat du candidat mairie du candidat député candidat président de la république maay sen candidat and len nek ben lu wara a daanu ñu dalal ko le 24 février ma toogaat ci place bi ma continuer liggéey Sénégal loolu nak ah responsable politique ñu xam bokk na ci APR déggul nañ déggul déglu nañ président Macky Sall nañ ko jëfee nañu yaatal nañ ci boolee mouvement yi mouvement yi am nañu am am nañu am solo de mouvement yi am nañu taxawaay de mouvement yi am nañu dëgërulaay de ah président Macky Sall mu ne moom ku nangu mouvement yi moom ku nangul mouvement yi moom nangul mouvement yi donc nañu boole mouvement yi nañ leen woo nañ leen jox cër nañ leen associé nañ leen def ko jox may joxe confiance parce que xeex bi dafa war a yaatu dafa war a xóot dafa war a dëgër pour que ndam bi leer leeraay bu nga xam ne kenn mënu ko wéti donc ñun loolu mooy suñu message mais loolu mooy suñu taxawaay aussi mais alhamdulilahi rabbil alamin fekk nañu fii ñu mel monsieur le maire de la ville de Thiès fekk nañu fii ñu mel ni Babacar Fall ñu mel fekk nañu ñu nos sages nos doyens les acteurs de la paix et de l'unité les sages de Beno Bokk Yaakaar tey si suba dama daje ak ñoom ma wax leen affaire bi mu ngi seen loxo yéen ci war a dox budget. ak bëccëg dajale ñëpp.

am masque ñoo xam ne avant ñuy sol masque yi xamoon nañu leen mënuñu nax kenn mënuñu nax kenn le maire l'a dit ce matin am na ñu nga xam ne bu ñu sàgganee ba jox leen réew mi lu xewoon Allemagne ak Hitler mun nañ xew fii nañu ñaan yàlla yàlla musal ñu loolu ñu jàpp fu ñu war a jàpp parce que yoon bi leer na gis-gis bi leer na président yoonam leer gis programme politique et économique leer plan Sénégal émergent foo gis foo dem nga gis résultat te mu ci askan wi ñu gis jaar ñu ci frontière Sénégal ak Piment laaj leen ñu nekk ci dëkk yi yi plat pour promouvoir. laaj ñu am yi ñu am ah, Sénégal mi ngi liggéey Sénégal mu ngi liggéey te liggéey bi dafa leer nañ wax nag dafa yomb damay faral di wax ne boo nekkee nit nga nekk responsable nga yaakaar ne sa askan ak sa réew am na lu ma la njëriñe lu ma lu ma lu laaj dafa am na lu ma laaj ci yow boo toogee da wax ne yow ban njëriñ lan nga bëgg njëriñal sa c'est-à-dire lan nga bëgg nga war a buggal sa réew yéemu ne bugg naa nekk président de la république président de la république kenn ko joxe yàlla moo ko joxe président de la république yàlla moo ko joxe c'est un destin mais ambition nit boo nekkee nit nga nekk nit nga mot nit sa ambition lan moo war a nekk être au service de ton pays et de ton peuple loolu moom loolu moom foo mu

bu commencé wax dafa dem ci gox goxaan yi dafa dem ci askan bi laaj leen lan mooy seen yitti lan mooy seen problème mu bind ko delluwaat Sénégal delluwaat Dakar delluwaat ci capital yi bind programme ñu tuddee ko yoonu as yoonu yokkuti 2012 bu mu taxawee di wut Sénégal dafa ne man sama yoon mu ngi nii mu leer nañ saagul kenn xasul kenn gaa yi dem place Obélisque mu ne man du place Obélisque moo may fal askan yi moo may fal ci askan bi lay dem. ngeen génn seen kër ngeen voté ngeen jox ko ndam sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin donc ku nga xam ne liggéey mooy wax rek xasante rek te fekk tegoo dara ci loxo nit ñi wane woo benn programme wanoo benn rafetaay yorin bu ñu la dénk woon démb mosoo ko mu wane du tey nga koy wane ñun nag ñun nag gëm nañ ne Thiès a déjà basculé. Thiès a déjà basculé. donc nous euh, ngi le grand gërëm di mais surtout avant de terminer gërëm lu waral suñu teewaay fii tey ci Bissau ah mbay waa Thiès yëpp parce que lii dañu ko defar nous, mais waa ce nga ko faire responsabilité du il y yaakaar naa ko fàtte parce que il y a xam ne bi fayu fii dërëm dañ ko jox gratuitement il Serigne ko même sama la ko pour man kenn daf ko pour Thiès président de la République defar ko tous les acteurs politiques de la ville de Thiès. loolu mu tax dafa bëgg yéen ñii acteurs politiques de la ville de Thiès en premier lieu monsieur le maire ak waa Benno ko Yaakaar dama bëgg dem leen di ñaan ngir yàlla ngeen ngeen xoolam bu baax a baax a baax a baax a maa ngi maa leen koy dënk xam ngeen ne c'est une très grande personnalité dans la ville ku bàyyi léppam nekk am lépp foofu bàyyi lépp mu ne dama ñëw investir chez moi dama bëgg ngeen jàppale ma baax a baax a baax a baax. parce que wax naa ko xaritam yi dama bëgg mu ñëw ci wetu président Macky Sall dama bëgg mu ñëw seen wet seen wet ñu liggéey Thiès liggéey Sénégal parce que am na envergure bi am na xam-xam bi am na taxawaay bi am na xol bi parce que ku mun defaral ki fii lii nit xam ne ne mun na defar ëpp yi parce que c'est très sincère en lui donc. maa ngi gërëm aussi ma soeur madame Silla Mariam moo ñu dalal depuis démb ba tey lii bu ko lépp am nañu dama wax ne man duma duma duma duma traite premier jour ñu doon ramp bu ñu doon samp ramp Thiès këram lañ ko defar te ñu dellu di taxawal mel nii di waxtaan ah, bàyyi këram foofu la ñu dem et voilà la victoire. voilà la victoire la mobilisation kàddu yu rafet yu nekk engagement yu rafet yu nekk fii ak taxawaay ni ces grands responsables de Thiès ñëw déglu ñun ñu touti, ñu xam ne amuñu benn njëriñ déglu ñu sargal ñu may ñu teranga bu teranga bu mel nii mais notre communicateur notre communicateur traditionnel bi la fàtte moom monsieur Diop amu foofu parce que da nga bëgg président Macky Sall ñun mënuñu ko dañ ne da taxawal président Macky Sall te da nga yàgg wax fii ci Thiès responsable yi nañu nekk benn waay ñun ñu bañ sonn dëgg bu ñu nekkul benn rek yéen sonn parce que yéen gis leen kenn ku dul président Macky Sall bu ngeen gisee ñu xam ne dañ ku nekk dañ ne président la àndal ku nekk def lu ko neex. dof daal dafa ni jaaxal te def leen déranger xam nañ ko mais yal nañu yàlla may seen yéene bu ñu yàlla may seen yéene lépp jaar si yoon donc fu may terminer monsieur le maire messieurs les doyens ah man de am na yaakaar te xam ngeen APR APR yaakaar lañu tudd te yaakaar bi mu ngi fii te incha allah rabi jusqu'à deux mille vingt quatre ba deux mille trente cinq yaakaar ba yaakaar bi tas. parce que si dëgg lañ toog ci dëgg lañ jiital te gis-gis bu leer lañ jiital donc monsieur le maire mes doyens de Benno Bokk Yaakaar delloo nañ yëpp ci seen loxo allez voir vos petits frères vos frères qui sont des acteurs politiques surtout de la paix parce que yéen rek yéen a mën a defar seen diggante yéen ñëpp ngeen ànd ak tous les mouvements de soutien sans exception ngeen defar benn plateforme autour de la rampe, nous sommes prêts, autour d'un collège fort pour construire cette dynamique irréversible qui fera tâche d'une parce qu'il renversera définitivement le son, ce son tant entendu, mais qui est en train de disparaître et de mourir pour que vive le temps de la liberté, le temps de l'unité, le temps de la fraternité, mais surtout le temps du développement pour l'émergence. Nous venons aussi notre frère Ilan Diallo de la presse. Les femmes qui de con, ça ne La délégation qui est venue de Dakar, Diallo. Mon Mon mon mon tout ça gratuitement. Ndax lan, ndax président Macky réewam ndax a bëgg Cees ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant lii nag Cees la Cees est une terre Cees réew teraanga la xam nañ ko mais réew jàmbaar la aussi c'est la terre du refus à Thiès bañ fu mu mënoon jógee fii lay tamat te bañ bu dëgër du bañ opportuniste donc vraiment ñu ngi gërëm yëpp di aussi la presse suñu journaliste yi ñu xam nous leeral lépp ñooy jokkee ñooy tax lépp ñëpp jokkoo ànd nekk benn. ñu remercier di leen féliciter seen taxawaay xamal ne nous rek ñoo am dëgg Sénégal benn bopp la loolu nous souvent di wax la presse et la justice dañoo

donc loi bi moo tax ñu ànd parce que foofu ku am dëgg foofu la ñu koy attee ku am ku nekk si dëgg aussi foofu la ñu koy attee